الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن من أعظم ما افترضه الله علينا تجاه نعمة الذرية أن نقوم على أمر تربيتهم وتعاهدهم بما يصلح لهم أمور دنياهم وآخرتهم والأولاد أيها الأحباب في نزل القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا كما قال المولى في محكم التنزيل المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقيتي على تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla doole xéewal te musal ginnaaw loolu dafa am tom bu nu ubbi woon àjjuma bi passé mooy tarbiyatul awlaad kama yaraaha alquraanul karim mooy yar njaboot naka la ko alquraanul karim téere borom bi tabaraka wa taala gisee ñu defoon tomb bu njëkk bi tey nekk ñaareelu tomb pour ñu yeggali waxtaan woowu di yar njaboot naka la ko alquran ci tey ahamiyatu tarbiyatul awlaad ususan importance yar xale yi yar njaboot bi mu ne li gën a rëy li yàlla farataal ci ñun ci sunu njaboot mooy ñu jóg pour yar leen inna min a'zami ma faradahu llahu alayna li gën a rëy nekk farata yàlla teg ko sunu kaw lool ñun waajur yi baay yi yaay yi kilifa yi li gën a rëy yàlla teg ko seen lool mooy lan mooy yar seeni doom xéewal gi nga xam ne moom la leen yàlla may muy njaboot yàlla teg seeni loos nañ leen yàq waaye ak préparé leneen préparation boo xam ne ci àddina bii nuy dund ñoom njaboot boobu doom yooyu xale yooyu dañuy xam bu ñuy teg seen tànk waaye ëllëg àllaaxira bu nu daj bu nu daje seen boroom ñoom njaboot boobu ñu daal di dugg ci dugg aljanna kon ñaar yi moo ñu war ñu mbaay yi ñaar yi moo ñu war ñu kilifa yi ñaar ñii moom war ñun jiit yi mooy lan yar xale ba adduna bii nu nekk ñu teg xam fu ñuy def seen tànk xam lu ñuy wax xam lu ñuy def xam fu ñuy dugg xam fu ñuy génn waaye ñu fexe ba xale yooyu jubóog seen borom ëllëg yawmal qiyaam bu nu dajeeg seen borom daal di dugg aljanna liggéey bii mbokk yi mooy liggéey bi yàlla sant ndey yi ak baay yi ak jiit yi wal awlaadu fi nazril qur'aan al karim ziinatul xayaati dunya xëy na doomu aadama yi tey ci kaw suuf am na lu mu gisee njaboot waaye téere borom bii di alquran téere borom bii di subhanahu wa taala wàcce di kat bi yàlla moom dafa am lu mu gisee njaboot yàlla wax ko ci suratul kaf ay 46 mu ne almaalu wal banuun alal ak njaboot mu ne ziinatul xayaat dunia mooy taaral aduna aduna koo fi di mu am alal ak alalam day tax dundam daa di taaru waaye koo gis mu am njaboot dundam day am taar moo tax yàlla mu ne ñaar yooyu alal ak njaboot day taaral aduna kon ku ko yàlla may lan moo la war mooy sant suñu borom jalla jalaaluhu alal bi nga xool koo koy def ku neex yàlla njaboot gi nga teg leen ci yoonu yàlla ki gën a perte ci aduna mooy ki yàlla may taraanga yàlla defal jox la alal yàlla jox la njaboot nga daal di jël njaboot yi sànq leen def leen ay bàyyi ba waaye nga jël alal jooju sànq ko dugal ko ku neexul yàlla tabaraka wa taala inna al abna ayuha al ahbab amana wa mas'uliya yaqulu alayhi salatu wassalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mbokk jullit yi doom ndénkaane la bu yàlla dénkaane wamal maalu wal ahluuna illa al wada fala budda yawman illa an turaddu al wadaaya alal bi ak njaboot bi yàlla moo la ko dénk moo tax bisa ngi ñëw yàlla nee na dinaa ko rocc jële ko ci yow dinaa la jël yóbbu wala ma jël leen yóbbu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen ñëpp kullukum la wax yéen ñëpp raa'in ay sàmmkat ngeen ñëpp yoon ci bàyyi kenn wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nekk li ngay sàmm danañ la taxawloo ëllëg yow nag yaam laaj la ko loolu moo tax ku am njaboot amatoo droit noppal amatoo droit tëdd bi nelaw lu tax sa nelaw dafa war a jeex sa ñàkk jot dafa war a jeeg ndax li la yàlla wax yonent bi nee na yow sàmmkat nga te ëllëg yow ma xiyaam danañ la laaj li nga doon sàmm kan moo lay laaj du doomu aadama de du mala du jinne yàlla subhanahu wa taala borom asamaan ak suuf moo lay taxaloo di la laaj lim la doon sàmmloo fan nga ko def kon loolu jar naa bañ a nelaw moo tax aaya ma ba mu wàccee ku anfusakum wa ahlikum naara sahaaba ba dafa jooy gaa yi laaj ko ba sonn looy jooy mu bañ leen ko wax ñu dem wax ko yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko diw ba mu fi jógee ba léegi muy jooy démb ba léegi yeneen bi ne woo leen ko ñu woo ko mu ñëw toog yeneen bi ne ko yow looy jooy mu ne yàlla subhaanahu wa taala moo teg sama kaw sama njaboot te man sama bopp rek ajastu an nafsi wa kullitu an ahli man sama bopp mënu maa fexe dugg aljanna sama koor yi sama julli yi sama jàng alquran sama jaamu yàlla doyul yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw mu ne lii mooma tiitloo lii laay jooy wallahi li jooyloo woon kooku laa wax tey ñun jot na mu jooyloo ñu yeneen bi ne rek kenn ku nekk yawmal qiyaam danañ la woo laaj la wal imaamu raa'in wa mas'uulun an ra'iyyati imaam yi imaam bi ëllëg sàmmkat la tey ëllëg dañ koy laaj moo tax ki gën a torox ci doomu aadama yi mooy kuy jiite nit ñi te jiite woo leen ci dëkk bu ne war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati war rajulu nit góor borom kër sàmmkat la ci biir këram ëllëg yàlla dina la xawal wala laaj la mbokk yi hadis bi bu doon fii dong la yam ëllëg tey jii ku gis dëkk bi nii mu mel ku gis kër yi nii ñu mel ku gis mbedd bi nii mu mel ku gis dëkk bi ñii gis ñi ngeen di gis ci biir dëkk bi ñuy dox ci mbedd yi ban lañu génne ndax kaw asamaan lañ wàcce tont bi mooy déedéet ndax ci biir suuf si lañ génnee tont bi mooy déedéet sama biir kër ak seen biir kër lañ génnee lan moo tax melu bi ne yàlla bëgg mooy nun noo deful suñu liggéey te nag ëllëg yàlla da ñuy laaj loolu borom kër ku nekk yàlla yonent bi nee na yàlla dina la taxaw loo laaj la loolu kenn ku nekk war na laa tere na la waaye li doy waar mooy tey ñun dañuy bañ suñu njaboot mer dañuy bañ suñu njaboot mer moo tax bëgg soxna si kontaan bëgg doom yi kontaan moo tax suñu waxee nga ni man de dama wax dëgg yàlla bëgguma leen wax dara moo tax nga bàyyi leen ñu nekk ci lu neexul yàlla waaw ëllëg bu la yàlla taxawlee xanaa xamoo ñu perte qul inna alxaasirin alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ñu perte mooy ñu perte seen bopp ëllëg yomal xiyaam nga dégg yàlla mën a jël leen waa ji ak soxnaam ak doomam it ngeen dugal leen biir jahannam qul inna alxaasirin alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama kon mbokk yi borom kër sàmmkat la ëllëg dañ koy laaj li mu doon sàmm wal mar'atu ra'iya jigéen sàmmkat la fii bayti zawjiha ci néegu borom kër wa mas'ulatun an ra'iyatiha moom tamit ëllëg dañ koy laaj nan la doon sëy nan la doon yaree njabootam nan la doon toppatoo jëkkëram nan la doon toppatoo alalu jëkkëram kon kenn ci muccul góor ak jigéen kenn muccul lu dul ki nga xam ne jaarale nga sa waa kër ci yàlla bëgg ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk julli yi li gën a rëy nekk taranga la ci yar doom soo nekkee ab julli gëm yàlla topp Seydina Muhammad góorgóorlu ci sa diine nga yar ci sa njaboot même ëllëg yow boo rawee sa njaboot ci jaamu yàlla nga raw leen waaye topp nañ la ci yoon boobu yàlla ci mbaaxam dana jël say doom dugal aljanna ñu fekk la loolu yàlla moo nu ko nettali ci suratu Tuur aaya vingt et un mu ne wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهينا borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla seen njaboot topp leen ci yoon woowu yoonu gëm yéen ñi gëm alquran ak sunna di góorgóorlu ci seen diine topp yàlla ku yonent loolu mooy iman su ko defee wattaba'tum zurriyatahum bi iman seen doom yi seen njaboot yi topp leen ci iman boobu yàlla nee na dinaa leen yéegal ñoom doom yi dinaa leen yéegal ba ñu fekk seeni baay fa ñu nekk ci aljanna loolu mooy résultat wu yar doom waaw lan mooy ndax doyul métit nga nekk borom kër nga góorgóorlu ci sa bopp sooy dem jàkka yow dong yaay dem boo yeewoo guddi yow dong la sooy tudd yàlla yow dong la looy def ci lu baax yow dong la ëllëg yow mal xiyaam yow kenn nga dugg àjjana sa njaboot nekk feneen ndax loolu xéewal la ci yow amul benn njëriñ pertement dëgg la kon njëriñ bi kontaan bi mooy comme ni ngay nekkee ci oto gees gis sa soxna nekk sa wet nga nekk ci kër gi gees gis sa soxna gis say njaboot nga toog ci bool bi lekk xool gis say doom ak sa njaboot ñoo la wër loolu moom mooy xéewal tey mooy xéewal ëllëg loolu la suñu diine sàkk ci ñun ñu góorgóorlu yar suñu njaboot pour ëllëg fa nu dugg bu nu yàlla di teral ëllëg yowmal xiyaam yàlla teral leen yaa ni bi daalika la تبارك وتعالى أن الذرية إذا كانت في الدرجة نازلة عن ذرية الآباء في الجنة فإنهم يلحقون بهم في الدرجة العليا حتى يحصل الاجتماع في الآخرة كما حصل الاجتماع في الدنيا borom xam-xam yi biñ ñuy firil aaya bi yàlla wax ne walladina amanu wattabatuhum zurriyatuhum bi iman ñu ne aaya bi li muy tekki mooy tey nii doomu aadama amee xéewal yàlla may ko soxla yàlla may koy doom lu muy def muy ànd ak ñoom yàlla dajale leen ci teraanga adduna suy lekk du leen bàyyi lu mu am ci xéewal du leen bàyyi du leen fàtte ëllëg yowmal qiyaam noonu la ko yàlla di dajaleeg ñoom ca biir aljanna kon doomu ndey mbokk yi imam Ghazali rahimahullahu taala mu ne as-sabi amaana inda walidayhi as-sabiyyu amaana inda walidayhi xale doom ndénkaane la ci ñaari way juróom ndénkaane kan moo la ko dénk yàlla ndax yow du nekk ci yow gàcce ëllëg nga taxaw ci kanamu yàlla yàlla mu ne la ba la dénkoon foo ko jaarale looy toon du nekk gàcce ci yow ndeysaan benn borom xam-xam bu mag dafa am doom doom ji mag am yalwaankat buy ñëw di yalwaan ci kër gi kër gi étage la waa ji yëg ba ci kaw ci escalier yi taxaw di yalwaan daal di leen di saram ndéegi doom gi génn rek bëmax ko waa ji daal di daanu di bërëngu ci escalier yi ba wadd ci dernier escalier papa ji dégg julli bi daal di daw génn gis waa ji toog la mu yoroon këpp waa ji ay rongoñam ni sottee doom ji taxaw bàyyi ji romb doom ji ñëw ba ci waa ji jox ko ñaari loxo ne ko baal ma ak baal ma ak man mii maa deful sama liggéey man la yàlla dox joom yaruma ko ba muy mbëkk julli di ci àdduna bi man mii la du doom ji de man mii la waaw am na lu bare bari tey li ñuy wax ci biir dëkk bi wallahi ñun la waaye du xale yi xale yi yow doom ji la yàlla jox kañ la ko yàlla jox bi muy dut ba lakk la dégg lal ban doole la am akamaa bëri wax ne doomu gaynde bu juddoo ba pare rek day dox ànd ak yaayam du dugg àll bi ñay moo fi gën a ngande doom doomu ñay moo ëpp doomu nit waaye nit ñay bu amee doom ba pare ñaari nit doom ji la koy topp ñu dox topp àll bi bépp rabu àll bu am doom su amee doom ba pare ñaari minute ñetti minute juróomi minute doom ji daf koy topp waaye doomu aadama rek mooy am doom doom ji du jóg de du tax ah doom ji du jóg de fi mu tëdd lay tëdd ñaata at ñaata weer ñaata ñaata mbokk yi loo xam ne kenn mënu ko wàññi ci ay weer lii boobu ne lan lu tëdd xam ngeen lu tax yàlla dafa bëgg balaa muy dox nañ ko defar balaa muy dox ci tas aduna balaa muy mën a dox nañ ko defar ba muy jógee di dox mu jox jëm fu yàlla bëgg balaa muy wax nañ ko tàggat ba bu waxee mu wax lu nit ñi mën a dégg balaa muy def nañ ko defar ba buy def lu def loo xam ne dañ naan cam loolu la yàlla bëgg moo tax doomu aadama bu juddoo suñ suñ ko bàyyi bu tëdd rek ay weeri weer ay ati at mu toog du mën a def dara su tax ku mel noonu nag bu la ko yàlla joxee mënul dara indiwul dara amul benn xam-xam déggul benn làkk mu nekk këyit bu weex tal loolu la imaam Ghazali wax mu ne bu xale bi texee dee rek yow la su xale bi juddoo nekk bandi yow la fam benn benn waay bu doon ànd ak reykatu nit yi ci Sénégal di dajji essentiel yi di daaj ci këri borom alal yi di reyaande bañ ko jàppee dugal ko ci kaso bu Sénégal bii yàlla dimbali woon nañu nun ñu bokk ci ñi ko nuyu ji ak waa jooju ndeysaan yal na ko yàlla yërëm tuddoon Abdoul Latif Guèye yal na ko yàlla yërëm ñu ànd ak moom ak délégation bu mag dugg ci kaso yi di ziyaare ñu fa dëj yàlla def ñu ñu boole ñëw waa jooju keroog ndeysaan ñu toogee moom toogaay bi yàgg bokk na ci li ko Abdoulatif laajoon waaw yow lu tax ngay rey nit ñi mu ne man musuma rey kenn moo tax ñu tuddee ma ino ino mooy innocent musuma rey nit ñi ma àndal ñooy rey mais man musuma rey moo tax ñu tuddee ma ino lu muy tekki mooy man innocent la musuma rey nit loolu moo tax ñu tuddee ma ñu ne ko waaw tey sa dund koo gën a mere mu ne sama ndey ak sama baay sama ndey ak sama baay loolu laa gën moom ñoom laa gën a mere lu tax mu wax raison yi tax yoo xam ne kenn du ko mën a waxaat fii mbokk jullit yi li am solo mooy doomu aadama bu la yàlla mayee doom sonnal ci moom tàggal ko jàngal ko yar ko wàññi ko loolu la ñu yàlla sant daw bi nu daw tey suñu responsabilité loolu moo tax dëkk bi yàqu dëkk bi lu ko yàq ndax jant bi dafa soppeeku fu mu doon génnee ndax asamaan bi daa wàcc ndax suuf si dafa wëlbatiku ndax géej gi dafa déborder ndax avion yi dañoo wàcc ci suuf di daw ndax terrain yi dañoo naaw ndax oto yi dañoo dem géej te daa de doomu aadama yi ñoo yàq dëkk bi ñan ñooy doomu aadama yi mooy ñun ñii nekk ci dëkk bi lu tax parce que yàlla subhaanahu wa taala programme bi mu wàcce ne mooy tax doomu aadama baax nun noonu lan ke ne duñ fa jaaral suñu bopp duñ fa jaaral suñu njaboot ixwatal iman ahdafu tarbiyatul atfal dafa am ay tomb yoo xam ne moom mooy importance su yar xale ahdaf tarbiyatul atfal yooyu bi ci njëkk mooy inna min ahdafi tarbiya al atfal huwa an yaftaha tiflu aynayni منذ نشأته على امتثال أوامر الله واجتناب نوا- ما نهى عنه ولتدرب على الابتعاد على الابتعاد عنها والطفل يربط منذ صغره بأحكام الشريعة وبذلك فإنه لا يعرف سوى الإسلام تشريعا ومنهجا li ëpp important ci yar xale mooy xale bi keroog ba bu muy xit ay bëtam di mën a xoolal ca tàmbali xale bi nañ ko yar ci mu defe mu jëfe santaane yàlla moo tax yonent bi foog naa leen xadis bi passé vendredi bi passé xale ba ba muy lekk lekk càmmoñ yonent bi dafa téye loxo bi ne ko yaa xulaam sammillah gis nga waxal bismillah xale bi ca njëlbeen balaa muy mën a wax balaa muy mën a dégg balaa muy képp bët yi di xool liñ ko jëkk a war a xamal mooy lan mooy mu ubbi ay bëtam ci xam ne dafa war a topp li yàlla santaane mu mooy te diggu li yàlla tere ñu entraîné xale bi entraîné ko ci mu sori bu nekk lu yàlla tere benn xale bi jigéen dafa am doom mu bëgg a yar doom ji tàmbali comme ni waa ji di wax mu ne xale bi saa yoo waxee lu bon gaawal nga gallax ndiku nga jéggul saa yoo waxee lu bon rek dawal nga raxas sa gémmiñ nga gallax ndiku xale bi daal di koy sàmm nekk mag saa yu defee lu bon wala mu wax ba rek day daw jàppi ndax gallax ndiku gémmiñam parce que yëpp ne def na bàkkaar lu mel noonu la ñuy yare xale ah jàngal ko naka lay yeggee naka lay naanee naka lay toogee naka lay doxee naka lay waxee naka lay solo xoolal tey sunu doom yi nan la ñuy solo yéen ñëpp xool na ngeen jullee jumaa ba pare taxaw leen ci ngeen xool mbedd mi ngeen xool jullit yi jigéen yi xale yu góor yi ni ñuy solo lu tax parce que kenn jàngalu leen ko kenn waxu leen jullit bu jigéen nii lay solo jullit bu góor nii lay solo dal leen bàyyi ñu mel ne ay njaay àll wala sax dal leen a dimbali ci lu kon loolu ñuy def ñu ëpp fii ci ñun ñooy dem jënd col yu kon yooyu ñu ngi seen doom ne solal solal solal maa la ko jëndal waaw xale bi bu tàmmee yooyu tàmm lu bon loolu tàmm ci baayam ak ndeyam di ko dund ndeyam di sol lu bon baayam di sol lu bon kër gi lu bon loo fi ak xale boobu nu muy def wala bi nee leen li juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله tomb bu njëkk bi mooy xale bi nañ ko yar tàggat ko ba mu tàmm jëfe li yàlla bëgg bàyyi li yàlla tere ñu entraîné ko ci ñu fexe yeew ko takk ko moom xale bi ci ahkaamu sariya mu xam sariya bi mu nekkee xale ba bay màgg moom xale boobu du xam leneen lu dul islam mu nekk sharia du xam lu dul islam mu nekk système de vie lu muy def day xam ne lii lii laa ci war a def fii lii laa ci war a wax su may dugg fii nii laay duggee su may génn nii laay génn wala tey li ëpp li ëpp problème mooy bu fekkoon ne dagan naa wax sunna bu ndaw su dagan na wax ñi lay wóoyu ñuy wax tey julli di sax xamuñu booy dugg jàpp man tànk moo war a njëkk dugg ban tànk moo war a njëkk a génn booy dugg ci duus ban tànk moo war a njëkk a dugg ban moo war a génn booy tëdd noo war a tëddee yaa ko soxna nu ngeen di téye ah booy dugg ci oto loo war a wax sooy wàcc subhanallah te yooyu nga xam ne jullit yi xamuñu ko kon nan la ñuy xamee yu mag yi suñu ndaw yu ndaw yi réeree nga xam ne xamuñu ko allahu akbar kon mbokku jullit yi yu mag yooyu islam doon ñu tàngal kon nuñ koy xamee ñaareel bi mooy an yakuna tiflu yaxtarim qiyam wal axlaq ñu fexe ba yar suñu doom yi ñu respecté valeur culture islam ñu respecté ko jullit bi bu gisoon alquran wallahi na fii ñàkk bu ñu yàq yar ñu bëgg diin mam na kaara bi sabadiya ci biir kaaba bi ngay gis ku yor kaamil jàng ba yàgg teg ko ci moket bi moket laa wax moket fii tey boo fekkoon ne kaamil ñu teg ko ci moket wala ñu teg ko ci siyaada doo wax dara da ngay sant yàlla wallahi ñeme woo ko def dëkku naa ni nga teg kaamil ci siyaada laa wax ñeme woo ko da ngay gis ku daw bërëm mu këpp kaamil bi teg ko ci dënnam ne la bul ko teg ci suuf lii kenn du ko wàccee xoolal yar boobu xoolal yar boobu ñu yar nit jullit yooyu ah kaamil ñemewo ko teg ci si yar waaw loolu la ñu war a yar suñu doom yi yar suñu bopp waaye bala ñu ci yar suñu doom yi est-ce que ñun suñu bopp ñun tey naka ak téere yàlla boobu ah ñun tey naka da ngay gis ay jullit yu jël seeni sabar ci ko ba ci buntu jàkk di dëgg benn mbokk nee na ma ba ci def ñun amuñu luñ julli imam bi moom mu jël micro bi naan ñooñu yéen ñooñu may leen ñu ba ñu julli waaye waaye waaye may leen ñu ba ñu julli est-ce que pale ñeme nañ fàttali bi sabar buntu pale kan si ñu fii day julli ci jumaa moo ñeme am ngénte jël ay baax teg ko ci pata def ba buntu pale ne fii laa fii laa koy def waaye loolu ñu ragalee doomu aadama yi la ñu ñemee yàlla kenn ñeme ko def buntu kër commissaire kenn mënuñu ko def buntu kër yàlla buntu kër président waaye da ngay gis indi ay ndëndëm indi ay sabaram ba ci buntu jàkka ji di tëkk boo xam ne damay njënd wala damay jéetal wala wala wala wala wala mbokk jullit yi nañu fexe ba xale yi respecté xiyam valeur yi islam yi waaye mu am jikko islam dañu fexe ba suñu doom yi yow jikko islam suñu nuyoo ñu ne asalaamaaleykum suñu mais wala banditisme la ñuy jàngal xale yi ci langage yu kenn xamul xale yu ndaw yi tey bu ñu waxee yow ay nga toog ci langage yu bon parce que ñun la ñu ngeen wax ak ñoom ñoo leen di jàngal lu bon ñetteel an yakuna tiflu sa'idan dañ fexe ba xale bi tege xale bi tege xam diine xam yàlla xam yonent bëgg yàlla bëgg yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na marru awlaadakum ala salaasati xisaal hubbu nabiyakum wa ala baytihi wa tilawati alquran fa inna hamalata alquran fi zilli arshi allah yawma laa zilla illaa zillu maa anbiyaa'ihi wa asfiyaa yéen ci yàlla Muhammad nee na yar leen seen doom ci ñetti mbir bëgg yonent bi bëgg waa kër yonent bi jàng alquran yar leen seen doom ci loolu waaw fii lan la ñaar suñu doom bëgg ci ay footballeur bëgg ay mbër di toppandoo ay mbër di toppandoo ay footballeur di toppandoo ay musicien di toppandoo ay théâtre loolu la ñaar suñu xale yi boo wax dina leen woon fukki xale di leen laaj sahaaba yi wala nga leen laaj yeneen bi juróom doomam kenn du ko xam parce que yaruñu leen ci lan la leen yar ci caaxaan yi ñuy gis tey ci mbedd yi benn mbokk ndeysaan daf ma yónnee benn sonor ci WhatsApp mu ne ma Sénégal dafa am fan yu ci xew dafa am ñaari xale yu jigéen kenn kaa ngi tudd Maam Jaara keneen kaa ngi tudd Maam Jaara Maam Jaara bi mokkal alquran Sénégal ñuy concours alquran fële ca ginnaaw yu tudd réew ci réew arab ya ñu yóbbu maam jaara boobu mu jël xaw ma septième xaw ma quatorzième la jël ci addina bi yëpp nag laa am maam jaara boo xam ne xaw ma petit gàll la gagné ñu jox ko kër jox koy million kee kenn yëgu ko ki jàng alquran kenn yëgu ko yëg ngeen ko yëgee mu ngi nii yéen waa ji waa ji sax yëgu leen ko kee moom ñu jox ko petit gàll la gagné ay way fecc ñu jox xolal xolal ñaar yi kële laa wax ci adduna bi bu ñu defee raad yi dàq jàng alxuraan alal septième la jël kooku ngeen defe ne jarul woon teeru ci aéroport kooku jarul woon lalal tapis rouge kooku jarul woon organisé kooku jarul woon ah kay waaye Sénégal ñooy nit ñi nga xam ne diine subhaanahu wa taala islam moo leen liggéeyul islam moo leen ñorul bu ñuy wax dëgg-dëgg da ngay dégg ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman wallahi azim su fekkoon ne dëgg-dëgg dañ leen di natt ci charia amuñu deux pour cent amuñu deux pour cent bu ñu leen di natt ci charia ci diina yàlla bi di tabaraka wa taala kon nañ fexe ba xale yi nekk xale yu texe ñeenteel mooy an yataatafa tifl ma al axarin xale yi nañu fexe bañ am cofeel ci ñun xale yi nañ ñu jege nit na ko doomam jege benn waay nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam am naa ñeenti doom kenn musul saw sama kaw yonent bi ne ko yow yàlla moo rot ci yërmande ci sa dënn loolu mooy musuma cee fab kenn yow yàlla moo rot ci yërmande ci yow xanaa xamuloo ne ah arrahimuna yarhamuhu rahman irhamu man fil ard yarhamuhum man fis sama ñii yërëmaate yàlla moo leen di yërëm yërëm leen ñi ci suuf waa asamaan yërëm leen nooy amee ay doon te musuñu taw sa kaw Omar ibn Khattab dafa woo benn waaye ne ko dama lay yónni waa ji toog Omar di waxtaan ak moom Omar sëtam yi ñëw ñii di xëcc sëru Omar ñii di xëcc kaala gi ñii di xëcc sikkim bi ñii di ko taw di dóor sët yi sët ak maam waa ji jékki-jékki rek daal ne man bu doon kenn la rey naa kenn bu yàgg Omar ne ko jógal dem jógal jógal mu ne doo dama yónni Omar ne ko yow amoo yërmande bu ma la yónni ci jaamu yàlla yi ku amul yërmande ci say sët doo am yërmande ci jaamu yàlla yi jógal yow du ma la yónni voilà nit dafay yërëm doomam nit dafay bëgg doomam ndax doom al walad majbala wa maxbala doom nayukaay la doom ragalukaay la majbala wa maxbala lu yoon yonent bi nee na boo amee doom da ngay nay boo amee doom da ngay sàppe ñu ne yonent loolu lu mu nekkee mu ne tey ci sa boo amoon doom nga yor téeméer kese kese sa poos téeméer kese mun nga nar a fanaanoo doo ko lekk daa ne naa bàyyi ko suba rek xale yi nekkee ko téeméer boobu yow doo ko lekk sa poos nga koy lekk ñu ne waaw loolu mooy maj bala ñu ne maj bala nag mu ne maj bala mooy soo amee doom nga nekk ci kër gi nga jékki-jékki dégg lenn ne rël nga génn gi soo ko nooy def dana ngay dem dëgg da ngay génne di xool anam lan la li daanu lan la mbaa du moom mooy yente ne yow tàppet na lu daf sa diwo amee doom da ngay ragal su génnee gisoo ko sax dootoo nelaw foog nga gis ko kan ci ñun mooy am doom bu réer bu def tëdd nelaw fekk gisoo ko doo fanaan soo tëddee it doo nelaw yente nee na boo amee doom da ngay tàppet kon mbokk julli yi musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men